salaam mbokki safin 7 TV maa ngi bëgg ñëpp di ziar ñëpp di ñëw gën chef fo shot ak tërëm gën a fës yéen journée la dimanche 23 juillet dañ ah, ko si joueurs yi sa Japon ngeen nag jongante ay match xaritoo xam ne ah, dem foofu dañ

jëlul léegi ba léegi décision si avenir ñoom naka dinañ ko jaay kon waa Paris Saint-Germain lu bëgg ma yaa tàggali ko ak client ba fekkee naka naru la prolonger contrat am club bi moom lañ ko bëgg a jox waa Chelsea tamit euh, nekk foofu sa Angleterre Real Madrid ñuy fàttali ñoom nag ñooy club bi nga xam ne ñoom ñoo yàgg intéressé aussi ci di yeeg leen ok ñoom tam te ñu ngi taxaw di xaar situation bi nu muy demee ba léegi ak Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain def nañu offre pour kii di te déggoo nañu waaye Olympique de Lyon ñoom moo bëgg jaay seen joueur bi Paris Saint-Germain nag déggoo nañu ak bi te am nañu accord ak moom ba léegi ak Paris saint ñu ngi waajal offre bu toll si 40 euh, millions d'euros ngir nag euh, joueur bi di euh, Bernardo Silva nekk milieu terrain club bi di Manchester City pare nañ nag pour dugal seen joueur maanaam daal dañuy ay 40 millions d'euros ak seen benn joueur muy Marco Verratti wala seen gardien bi di Donnarumma waaye Manchester City nag dañoo d'accord offre boobu ñu ngi laaj 100 millions ngir nag bàyyi seen joueur bi dem Dimitri Payet bi nga xam ne tàggatoo moom moo nekkatul la joueur olympique de Marseille fu toll nii nag joueur bu libre la benn club bu nekk foofu sa Arabie Saoudite proposé nañ ko ñaari atu contrat ak salaire toll si six millions d'euros at bu nekk club yi di Olympiakos nekk tamit championnat Grèce ñoom tamit ba léegi ba léegi doomu Sénégal bi di Iliman Ndiaye te nag ñu ngi di négocier ak moom te dellu si war nañu Olympique de Marseille du doomu Sénégal bi nga xam bëgg nañ ko muy Ismaïla kon nag kii di Ismaïla Sarr waa Olympique de Marseille tàmbalee nañ négocier ak négocier ak ay jegeñaaleem te tamit euh, def nañ seen offre bu njëkk ngir nag kii di Ismaïla Sarr nekk foofu sa Watford waa Olympique de Marseille gannaaw nag bi nga xam ne nañu signature ba may bëgg nañu see dolli yeneen ñaari joueur muy Thomas Lemar bu Atlético de Madrid ak kii di Isco bi ñu ko xam si Pape Gueye nekk doomu Sénégal moom nag tribunal arbitral du sport dañ ko daan ñeente weer yoo xam ne nag du laale lu takkee si football ak ndàmpaay bi nga ne war ko fay lu toll si 2,5 millions d'euros moo war ko fay club bi di war for kon nag kii di Pape Gueye yëf yi nag mu ngi xewoon si atum mois 2020 bu muy jógee Watford dem ba signé ak Olympique de Marseille te dagguloon na contrat am ak kon looloo tax nag tribunal arbitral du sport daan ko ñeenti weer yoo xam ne warul dara lu jëmee si football ba léegi foofu sa France officiel na Samuel Umtiti jóge na si euh, club bi FC Barcelone dem ba signé ak club bi di Lille gën na bi nga na contrat am ak Barça kon ak Ibou Sané ñoom ma signé nañu seen non contrat ak club bi di Yamet su jóge foofu sa génération foot di ja Sénégal militaire sénégalais bi di Yàlla min na jàkk club bi di Al Nassr ay jege ñaalam jot nañoo daje ak dirigeant Al Nassr ngir nag mën a signé contrat bi nu mu gën a gaaw ba léegi nag ñu ngi si yee négociation yi dara sotteegul Al Nassr la des ba léegi kii di Alex Telles nekk joueur foofu sa Manchester City dinañ signé dinañ signé contrat ak Al Nassr lu la dara def na visite médicale am lépp jaar na yoon ba léegi ak Al Nassr ñu ngi ciblé joueur di Eric Bailly bi xam ne nag Manchester United ñoo ko abile woon foofu sa France ci club bi di Olympique de Marseille kon nag kii di Eric Bailly dellu na ci club am di Manchester United te jamono ñu toll nii nag ñu ngi foofu sa Arabie Saoudite la des ba léegi Riyad Mahrez def na visite médicale am jaar na yoon dina contrat am ak Al la dara keneen ko def fa visite médicale te lépp jaar na yoon muy Jordan Anderson bu Liverpool kon na moom def na visite médicale te dina signé contrat am ak Al Ittifaq Bayern Munich dugg nañ si yenn négociation ngir naka mën a am kii di nekk milieu terrain si club bi Liverpool Liverpool ñu phase bi si négociation yi kon nag di euh, Fabinho mu ngi doon euh, waaj a signé contrat ak Al-Ittihad Bayern Munich Liverpool bi. Crystal Palace ñu ngi laajte cent dix bi ñoo ko bëgg a signé Elanga bu Manchester United la war a def visite médicale am naka motal la signature am club bi di Nottingham Forest officiel na Moussa Diaby jóge na bàyyi na Leverkusen si ñàkk Aston Villa transfert mu ngi dikkee Aston Villa ñu jàll foofu sa Espagnol club bi di FC Barcelone Ousmane Dembélé dakk na offre mu nga xam ne nag Al Nassr moo ko defaloon muy offre bu am solo ñu ko proposé woon euh, xaalis bu bëri ngir mu dem signé fa waaye nag dafa dàkk offre boobu bëgg def foofu sa bëgg a des di fa jouer ba léegi ak FC Barcelone Barcelone day goon ak Real Betis ngir nag ñu joxe fa seen joueur bi di Chadi euh, Riad kon nag dañ fa bëgg a ak option d'achat beneen joueur bi nga xam ne nag mën naa jógee Barcelone mooy euh, kii di Nico Gonzalez kon nag club bi di FC Porto ñoo ko proposé contrat ba te mën naa dem signé ji foofu Real Sociedad nekk foofu sa Espagne jamono ñu toll nag ñoo gën a jekku ngir nag signé milieu Liverpool bi di euh, Thiago Alcantara signé na contrat am ak Milan jóge si club bi di Strasbourg transfert mi ngi dikkee Milan 13 millions keneen koy waaj a foofu sa Milan mooy Samuel Chukwueze nekk si club bi di Villarreal kon na dégg nañu si lépp. Milan AC proposé nañu jour contrat ba 2028 officiel Arturo Melo Juventus de Turin abal ko si club bi di Fiorentina ak option d'achat bu toll si 20 millions d'euros ñu ñëw fii si Sénégal Jean-Louis bi di ak centre gauche wu FC bi di Yaya Camara am fukki at ak juróom-ñeent moom moo signé nag club bi di FC Meta nekk première division championnat Lettonie. Coupe des Nations bi comme yow Coupe des Nations pour football te fi si Sénégal dafa ñàkk ñaari match mu ngi ko si kanamu Iran Iran moo leen dóor juróomi bal si benn ñaareel match ni ñu ko ñàkk si kanamu. Russie bi nga moo dalal compétition mu dóor la Sénégal juróom benn juróom ñeent kon na Sénégal a joué ñetteelu match a laale ak Émirats Arabes Unis sur 10 heures jotee. championnat Sénégal Ligue 1 programme vingt cinquième journée Sonacos moo war a Casa Sport tey jii su 17h jotee AS Douanes am na AS Pikine Gorée jàmbaar lay am Génération Foot may dalal Dakar Sacré-Cœur Cneps Excellence am na Linguère bu Saint-Louis Stade de Mbour am na suba si yëlande bi 17h Guédiawaye dina dalal Jaraaf ñu jeexale ak final national bu doon dox si diggante NGB ñaari tali ak RSA Yoff NGB ñaari tali ñoo mujj jël final national bi si kanamu RSA Yoff dooleel ñaari bal benn kon NGB ñaari tali dañuy mujj yegg si eh, deuxième division bi déwén foofu la ñuy yemale xibaar yi di leen naa beneen aussi des xibaar yi di leen ñeeroon ngeen mais pour jot information yi.